dangay génn ak nit ba relation ba jeex nga di ko liggéey nga sëy nit ba say ba tas nga dem ca guy ga daaj ko fa foo ko teg ne dootul am jëkkër ba illaa mi diini góoru Sénégal yéen a bon soxor iñaan iñañati jigéen ñu bëree ngi Afrique amuñu jëkkër góor a dem ca guy ga daaj leen fa ne dootuñu am jëkkër yow yaa xayti naa nga teg ko fan e ñàkk gem yàlla nag weesuwul loolu ah boroom bët bu rëy bii sax danga koy tooñ sax mu baal la yow nga sëy nit relation ba jeex nga ne yow doo am xolu muñ jël doomu jaambur joo xam ne daa waroon dem sayaat ke ak keneen nga daaj ko ca guy nga teg ko fan góoru Afrique yéen a soxor te iñaan te man yaa xayti mu laa naa lu ma gën a metti mooy seen jabar yi sax mënuñu leen yor dangay nekk ak sa jabar cent franc doo ko jox lu mu la laaj nga bañ bu ñu waxee nga naan kaan yaa ngi liggéey foo ko teg yow sa jabar buy liggéey li warloog yow doo ko def e sëy Afrique metti na sëy Afrique metti na dangay sëy ak ñoom duñ la yéen a jàmm duñ la yéen a salaam ennemi nag mi ngi commencé sax ci sa jëkkër ak jalousie man de yàqati mu laanaa man góor guy jalousie sa jabar man man man xaw góor googu moom xaw ma ci moom dara waa léegi yow kooku maar ba dem nga ne doo ko bàyyi di ko sëriñtu di ko turum di ko def ay affaire yum metti góor gu ko ñëw di ko bëgg nga xabtal ko mu xuloo kooku ba kooku dem ay waay bàyyi leen jigéen ñi ngeen di sëriñtu bàyyi leen jigéen ñi ngeen di liggéey ni dangay ngay gëm yàlla ala kama sala naxira atoy sa sabali bref am na góor ñoo xam ne moom dañuy xëy rekk di mer di saxaar kenn du xam nag lu ñuy mer dañuy xëy di mer seen jël seen jabar yi def leen ay noon Afrique yéen a soxor te iñaan Afrique yéen a soxor jigéen ñu bëree ngi Afrique di sëy ñii amee nañu goitre ñii amee cancer ñii dépérir dangay gis jigéen joo xam ne xale bu tuuti la waaye day mel ni mère bu màgget ndax dépérir jëkkëram du ko neexal bés ba mu ko takkee la ko gëj a woowee turam walla madame walla chérie walla mon amour eh, eh, eh yow di woo sa jabar munoo sax jaar ci turam góoru Afrique yéen soxor yéen a égoïste dangeen a soxor égoïste iñaan iñañati yow sa jabar nga ne munoo ko yéene jàmm mu nekk jeune fii nga takk ko ba mu ñëw say si sa kër nga di ko soxore di ko iñaane eh, sama vidéo bere fag yaakayti mulaanaa sax waru ko woon a am ah doy na waar